Ah, sama teewaay lenn la parce que affaire bi li may wax gars yi rek xeex bi du xeexu politique du xeexu parti li xeexu xam nga nation bi yëpp la parce que mënuñu fal nit ki euh, fal ko 2012 nga xamante ne dañoo jaayante bépp xeex lañ def pour fal ko mu ñëw ba 2024 mun di wàcc nguur gi ci noonu kon loolu lépp lu mu mu laaj dañ ko war a def comprendre nga euh, lii du euh, en fait suñu devoir de patriotisme la ñuy la ñuy la ñuy wane suñu devoir tamit de républicain la ñuy wane parce que Sénégal jaral na lu ne yaa mu mu whatever ñu nekk fa wala ñu bañ fa nekk fu ñu mën di nekk tamit dañuy représenter Sénégal kon donc loolu moo waral tey suñu teewaay ci bis bi waaw di support di di di jàpp ci xeex bi bu baax a baax a baax loolu moo suñu waral suñu suñu teewaay ci bis bi quoi waaw tey ñun teg nañ ci kanam man damay damay am lu ma naqari rek parce que ñun dama dama jàpp ñun suñu force de l'ordre ay mala lañ quoi man loolu laa ko mën a loolu laa ko mën parce que man mënu ma force de l'ordre yow nga gis benn handicapé boo xamante ne si moom handicapé la ci pousse-poussam la toog yor drapeau kooku amul benn menace bu mën a def ci yow kon kooku yow amoo raison di ko dóor waxuma laa ngay nangu pousse-poussam comprendre nga jigéen boo xamante ni yow nga ko takk lem ko xam nga du dara ci yow mais amul benn menace bu mën a def ci yow ba tax nga koy mbéj mbala nga koy dóor kon donc suñu force de l'ordre dañu war a nekk ay nit gis nga fii Amérique nit dañ ko fii rey sax nga ñëw fekk policiers yi ñu taxaw nga leen euh, chef la moo xew fi ñu expliquer la lu xew comprendre nga loolu bu doon suñu force de l'ordre du boo ñëwee dañ naan lay eh, booy dégage parce que ñoom esprit de mala nekk nit gis nga nit da comprendre nga mais mënuñu ñëw ñu leen dugal ci affaire boo ci di ñu ko def te ñoom bu ñu wàccee ñooy ñooy ataayandoo waa koñ bi ñooy añandoo te ñoom ñëpp ci ay kër lañ génnee kon nañu xam ni ñooñu ñuy dóor tamit ci ay kër lañ génne ni ñoom nañu fexee nekk nit def seen bopp nit te xam lii lay jeex comprendre nga man mën mos concevoir nga nekk jeune étant jeune di gisee moromu jeune di leen dóor mbaa nga leen dóor ay garde lacrymogène mbaa nga leen normal du def loolu quoi des fois booy wax sax laaj sa xol day bon quoi parce que affaire de bauche di ñuy def te loolu du yoon lool du yoon ñoom dañu war a nekk nit xam nga jéem a indiwaat seen bopp tuuti xam ni li ñuy def nii ñi leen koy digal bis day ñëw ñu jóge fi yee te ku ci def loo ci war a def loolu ëllëg tamit dinañ dinañ dinañ di nga rendre compte quoi. non xeex bi moom lu mu laaj dañ koy def ba keroog. Euh, ñu euh, maanaam suñu ñuy habitué résultat final quoi dañ koy def ba keroog ñuy am xam nga satisfaction te instant bi ñu ngi koy am à 100 pour cent parce que xeex bi ni mu demee mooy ni yaa ngi gis Nations Unies ñu ngi ci dugal seen kaddu yaa ngi gis CEDEAO ñu ngi koy wan ginnaaw parce que xam nañu lii affaire de beau jeu la te loolu dañ ci remercier diaspora bi parce que diaspora dañ ci xeex bu am solo comprendre nga naam gaa yaa ngi xeex sur le terrain mu laaj dañ koy def te fas wu ñu bàyyi ba keroog te 2020 euh, nu mu tudd élection yi dañu bëgg 25 kii bi di ñëw ñu organiser élection yi Macky Sall dem kii jël réew jël réew mi te na ni Diomaye Faye moo koy jël parce man mënu ma concevoir yow nga doon leader nga yow bëgg nga troisième mandat neexee na ñëw dëggal boppam Ousmane Sonko dëggal boppam 10 heures ñu tàqali koog moom mu ni nangul loolu am na candidat ñu ko indi a baayam du mu doon a yaayam comprendre nga toog na jeexal na day dem bu ko deful tamit dañuy lépp lu mu laaj dañu koy def yee lépp lu xeex bi laaj dañ koy def